thank you ñeneen ñi def joxe spécimen yi merci beaucoup Didier. ayca teggi teg son son teggi teg teggi teg teggi teg Ali ayca la yëngu teggi teg teggi teg. ayca Ali déglu déglu déglu le dañ koy bàyyi mu dugg mu mën a am. waaw na ko bàyyi mu dugg. waaw dañ koy bàyyi mu dugg moom kese ba. waaye xaw ma sax ne yaa ngi jàmm. beneen def salaamaaleykum sama gars yi maa ngi siyaar. daal ma dugg kër gëm yàlla waay. waaw. booy. liggéey xool liggéey. liggéey bi ñu liggéey moo xeexoon ba mu ñëw ñun mënoon noppalu ñun xam na nu mu demee rek mënoon noppalu nee nañ ko da ngay entraînement rek waaye du jàpp man saa foofu si garage taxi si garage taxi si garage taxi waaw école ba di nga fekkat sa ko day baax. dem na rek. dégg nga maanaam Sow bii seen bopp. gis naa gis naa dégg naa. Thank you. Amiin di ay jàmbaar di ay góor ñoo xam ni kenn ku nekk ci réew mi kenn ku nekk réew mi kenn ku nekk réew mi ñu ngi bind neex na KS TV lu waay bëgg mu leer yéen lay ñëw KS TV. Yewwi Askan Wi noonu wala yàlla jàppale may la vraiment victoire merci beaucoup taxaw la aussi merci beaucoup edou salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaamaaleykum la salaamaaleykum tigito asboga ah. xam nga fan la ñu nekk nii fan la ñu nekk nii eh, tigis nga xam nga fan la ñu nekk fan la ñu nekk e eh, di nga ànd ak monsieur le maire mi ngi wàcc sol aw dàllam lu maire bu sa def jéjaway sol saw dàllam ànd ak waa gox bi ànd ak doomu Guédiawaye yi Ahmed Aïdara di nuyu waa koñ bi di nuyu ñi ci kaw étage yi di nuyu waa salon yi après bu ñu paree ñu jàkkaarloog lawbe yi suñu yi à pàkk bi nga xam ne si mooy pàkk international adduna bi yëpp fii dañuy jëlee ay jëmbe jëlee fi ay sabar jële fi ay tama ànd ak Ahmed Aïdara e muy baaxee waaye bu ma nebbee fan jàkkaarlool ñu tabax ko ba mu jeex defar ko ba mu jeex ci xaalalu kan alalu doomu Géejawaay ayca Gaye Siby merci merci beaucoup. ñoo bokk ndey ñoo bokk baay war naa mën a nekk ñu saafante joxante loxo Guédiawaye jëm ca kanam la ñaanal nañ la jàppale ñaar yooyu am ñaanal la jàppale la xam dañ lay ñaanal jàppale la dañ lay ñaanal jàppale la ñun ñëpp ñunu nee jàppale ñunu nee na ñunu nee na ñunu nee na ku jàppale keneen nag ñoom ñoom la waa ñoom ñi nga xam ne ñëw na yàlla seen jàmm yàgg ci bitoo ñoom ñi nga xam ne ku bëgg fii ndam di nga jaar si ñoom ñi ay góor nangoo liggéey teel a xëy ku dee wàcc waaye nag yow askan wi la yal na yàlla def jàmm ci Guido. ci Guido li may agam solo. ñëwal. dañu fekk ci koo xam ni. waaye ka leen. Euh, il faut ñu communiquer un peu ci bulletin bi nga xam ne mooy bulletin Yewwi Askan Wi. loolu mënut a ñàkk loolu mënut a ñàkk. dafa baax parce que bëgg a gars yi bu ñu bëggee ci mbañ ci Guido. loolu ñu indi fii. dana ñëw dana ñëw dana voté bulletin Yewwi Askan Wi. mooy bulletin bu weex xam ne ñaari picc la. waaw ci biir nga xamal ni bulletin bi maas. waaw nag amul benn photo amul benn photo. ndax bëgg circulé rek. dama bëgg bulletin bi. waaw ñu déglu ko bu baax. ay sa ñu dem. bulletin bi amul photo. waaw bulletin bi ñaari picc moo ci nekk ñu bind ci coalition Yewwi Askan Wi. waaw kon nag fii ci Guédiawaye. waaw dama bëgg gars yi jàpp ne coalition Yewwi Askan Wi rek ñu voté. waaw on n'a pas besoin ñu dem feneen xam nga dañu soxla. dinañ leen seen carré national. yeewu askan bi loolu la soxla la communication xam nga c'est quoi voté le bulletin waaye ci ginnaaw askan bi nga xam ne moom ñaari picc yi ci ginnaaw ci ginnaaw nee na wala ku ko dugalee nay nii waaw mooy yeewi askan mooy yeewi askan wi ñaata picc la am moo am ñaari picc ñaari picc la am ñaari picc la am ñu bind ci bi ñu bind ci bulletin yeewi askan bi di ngeen soxna ci defe naa ne daal